kon yàlla ba ñu dindi leen ci nguur gi xam nga waliyu ñetti punition la am benn bi moo di ñu ñu delloo ko mu tàmbaliwaat zéro lépp lu mu defoon ñu nangu ko ñaareel punition bi ñun ko taxawal fii dootu fi jógeeti lu dul diir ba këkëb pini foofu euh, euh, mu dañ ñetteel bi moo di ñu fark ci nguuru yàlla booboo gën a boobu nag la waliyu yëpp ragal kooku ku koy mën mooy koo xam day yéeg ba yow ma alastu di seet ruux yi ba gis ruuxu waliyu boobu fark ci nguur yàlla dootoo amati tey soo toogoon waliyu boobu di wax ak moom suñ ko faree ci nguuru yàlla gi dootoo gisati ndax dootul amati boobu la waliyu yëpp nag gën ragal léegi nag waliyu boo xam ne def na neex suñu borom ba ñu delloo ko gannaaw wala ñu ne ko toogal fii su juróom jaar fukk yu day noonu yu defoon lool kenn yor ci tuxfatu mutadarrin di ko jàng kenn laal ko kooku keneen laal ko kooku keneen laal ko ñu def lu tubaab di wax colonne couvrée suñ daan pare ñoom junañ ñaar fukki yëpp seen wilaay day dellu siwaat ci saa si ci ñoom ci saa si amul di xaar suba ak ci saa si seen wilaay day dellusi si ci ñoom jël nañ ci Cheikh Abdoulaye laa Sarr mu ni su ngeen dee jàng tuxfatuma ta darain te am ci yéene aajo ñaari ab yaat yi dé ba saabi mujj bi wax fir li waalidayya wax fir li jamii ahli wa jumlati saabi ya samia wax fir li kulli di taaluqin biya wa xaqiqan saadati ya rabbiya wal tuf bina wa qawwina wa kun lana wa hëb lana xusna alxitaami rabbana wa sallin ala nabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslimi kuy baagante ci diggante boobu di nga taal làq mbootu xasida gi te mbootu xasida lu ñu ci wax rek kooka xas ba am siru xayaat suñ borom bi tekk sa lox te soo seetloo it ay asraar yu bare ci nekk soo jëlee tur yàlla yi am yaaw ni daaw fa qultu yaa qaribu jël leen machine ngeen calculer yaa qaribu qaribu xaaf gi 100 la raa gi 200 mu doon 300 yaay gi 10 mu doon 310 baa bi 2 mu doon 312 kon bind leen 312 te téye ko fa qultu yaa qaribu yaa mujibu mujibu 55 la waaw kon plus 55 nga ñëw fale wax fir li wax fir li jamia ahli wa jumlati sihaabi yaa samia samia siin gi 300 le plus 300 miim gi 40 yaay gi 10 le plus 10 ay ngi gi 70 le plus 70 mu jox la 700 bismillahi rahmaani rahim a ngoog waaw dafa yéeme al ixlaas waaw ah, qul huwa allahu ahadun allahu sama soo demee ci alxuraan ah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufan ahad am kook soo ko xoolee yàlla rek nga ciy gis. Ah, sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ah, nga nuyoo bu baax ñi nga xam ne ñu ngi seetaan nga leeral ñu bis bi lu ko waral ak lu waral tey jii depuis démb ba léegi 72 heures la wàccee nañu kaamil ñaanal way dawle yi ñu génn àdduna yàlla yërëm leen. Euh, bi ñu xëyee aussi boobu ba léegi nit ñaa ngi ci ab cant di ñëw di ziare koñ yi nit ñaa ngi jóge fu nekk dëkk ak dëkk sef de quartier yi sa diggante ak tiijaan yi ak julliti yàlla yi yi fi nekk ndax tey da nga dajale tiijaan murit tarixa yëpp ñu doon benn tey ji ñu lay laaj lu waral tey bis bi yow rek yaa ñu ko mun a xamal. am nañ mbégte bu baax ci seen teewaay bis bi sant yàlla moo ko waral ndax sant Serigne Touba mooy sant yàlla ndax dafa wax ne yàlla sant na ma ci kanamu kuréelam yi sakkarta ni hinda jami jundika yaa xayra jaarin xad makastu hindaka waxaa ne raddiya hanni sibtuhu jeylaani abul xasan waaye raddiya hanni xulafaalu ñoom ñëpp gërëm nañ ma bayit wa nag ca mujj ga moo waral suñu cant gi ndax dane ku ñoo ñëpp gërëm nag moom raddi yaani riddal lay sa yarim képp ku nekkul di la gërëm moo xaman ngërëmam waaye ak ñàkkam laa gërëm du la saf waxaate ne jihadiyal xada wa bayhi rabiha wali siwaaya kullu kalbin nabaha ne sama sama jihaat jeex na ma doon liggéey liggéey naa bala 5 jot damay dem ca banque ba di fayeeku ji su ma waree sama oto nag jëm ca banque ba di fayeeku ji mbott ya ne ca dég ba wala xaj yi ne ci koñ bi di baw ñooñu moom duñ ma tee fayu ko moo tax mu ne kul jihaadiyal waaye nag wali si waaye kullu kalbin na baaxa xaj yi baw ak di kii moom duñ ma tee jot xuloo bu jum latin la sina af lon li yettawa jaxat wa rabbil muslihon bépp xol bu yàlla nar nga texi ëllëg danga may bëgg bépp xol bu yàlla nara duma ëllëg wala sa nga nara am jafe-jafe àdduna dangay am deng-deng waxu ak bañ gi sax aggu ci moom deng-deng ci man rek xulub man lam yoy bon ala wajalin wala yu laa xuuna maaraamul walal baaba loolu kon doy na ci luñ sax ñu war koo sant mu may ñu tamit liberté sobe ñu ramm ñu ndax bi muy dem ci géej gi laxasaa yu fas yéene ànd ak tubaab yi te muy ànd boo xam ne ñi ko def génn ci bariwul bañ ko laajee lu la tax a jóg ginnaaw sababu baatin bi sababu saayir moom waan akoonu saafihan li xaw mi la wax damay ràmm ji sama waxeet te loolu li la koy xamal mooy alhaaji Maalik radiyallaahu anhu bi mu déggee ne woo nañ suñ Tuubaa dane ndokk bi mu ne ndokk ñi xamut ñi leen xamut jàpp ne da koo yéene jàpp gi wala dara mu ne leen ndokk gi ma waral damaa xam ne moom bu ko tubaab bi njëkkee woon duñu woo keneen comme xas nañ ko woo nag du ñu woote keneen te loolu mooy dëgg 1895 bi mu jaxasoog ñoom ba pare bi mu ñibbisee daa wax lu xorom moom suñ tubaab daa ne sama dégg tubaab bi xam ngeen nu mel ñu ne ko nu mel mu ne dafa mel ne ñaari xale yu toog fee di fo am ku ñëw ne leen du ngeen foweeti ñu dem di leen tere fama ñu gas pax mu rëy ànd ak waa ji ci biir pax ma di xeex jëflante ba pare ñoom ñett ñëpp génnaat ñaari ñoo doon toog fee kële taxaw fee tereetu leen noonu laa mel ak tubaab bi loolu tax loolu moom ku ku ku fu mel noonu ku fa jaar ak mbir mhm, xam nga ne bëri na ñoom gañe ne ne suñ tubaab suñ saak dane mhm. ku bëreeg seytaane ku bëreeg moom ku dul sëriñ bi fi tubaab di nga nërmeelu wala léegi nag teraanga yooyu yëpp mu booleel ñu ko mu booleel ñu ko defal ñu ko suñu jëmm yi kon war nañ ko sant mhm. moo tax ma tàmbali ne la sant yàlla lañ jiital ndax bu ñu waree sant yàlla bu ñu mënee sa bu ñu bëggee gis suñ tubaa bu ñu bëggee gis yàlla dañ koy jaaree ci suñ tubaa ndax mënuñoo tëb tëb jàpp ca yàlla boo tëbee tëb jàpp ci yàlla ab ay escalier nga bëgg a tëb tëb dem ci troisième étage boo wutul da ngay daanu da ngay jaar ci escalier yi escalier yooyu nag mooy suñ tubaa ci ñun kon moo waral ñu war koo sant sant it dafa day loo xam ne dafa dafa dana tumuranke ji ndax keroog ba iblis xuloog yàlla iblis yàlla ne ko génnal sama àjjana comme dama laa digal nga bañ ba mu meree ba mer dana ko génn nga ma sa àjjana dinaa génn ndax yaa ma am àjjana waaye nag nanga na la leer ne summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samalihim ba wala tajidu aksarum saakirin doomu aadama bi tax nga génne ma ëllëgati si biir na leen leer dinaa ko dikki kanamam ndeyjooram càmmooñam ginnaawam danañ àgg ci ba boo leen xéewale te sax duñ la sant wala ñu néewale sant ci ñoom yàlla ne ko waa baax na génnal ba tey rek waaw waaye nag am na ñoo xam ne ci ñoom mënoo ci ñoom dara ñoo ñu mënul ci ñoom dara nag mooy ñuy sant looloo tax ñuy sant te képp ku am wax naa ko keroog képp ku am joomi fulla joomi sant yàlla am fullay dolli la loolu waral ñuy sant yàlla di sant Sëñ Tuubaa loolu nga laaj nag ne koñ bi ni ma fi mel tijaan yeeg murid yeeg ñëpp bëgg ma di ñëw Tuubaa di ma fekk loolu man maa gëm ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratallahi loo boo ci jàpp te muy dëgg ci yàlla la la jame li baaxut nag mooy jàpp ci mbir daal di daal xeeb yëpp soo ko defee fa nga bokk lañ am rek ngay am waaye bu dee da nga am fii am fi am fii bu yàggee nga bari la kon loolu moo waral sant gi daayira bi nag gis nga leen xale yaa ngi nii tout tànk yoo xam ne amaguñ fukki at ak juróom kuréel 1 kuréel 2 lixlaasu xamal mooy ñu ne géejawaay génération lixlaas moo ëmb ñu ne ci réew mi ak ci bitim réew lixlaasu xal bi moo ne géejawaay lixlaasu xamal beneen bi moo ne Kër Masaar nga boo boolee yëpp muy diwaanu ixlaas loolu lépp nag ñu ànd ak ñoom di liggéeyal Sëñ Tuubaa te ndax bis bi boo gisee ni ñu ko taxawal xam ne lii du bisub kenn wala ñaar bisub bisub mbooloo huitième édition bi mooy huitième édition ñu koy def di ci sant yàlla di ci delloo njukkal Serigne Saliou mi nga moom la ñu tudde mu yar ñu am lu mu def ci ñun nag ñu war ko delloo njukkal di ko delloo njukkal waaw. seex Thioro euh, bi mu bi Mamour Diarra nelawee moom it bi mu koy tagg dafa wax ni mooy maam yi ñii ndax si moog suñu mii seen maam ñoo bokk lépp soxna Fatim Mbacké mi ak soxna maam ngi leen nuyu baax nuyu waa kër sëñ Moustapha mi dafa ne faxat na sayxu Mamour Diarra baxran mu mii daan bi lon la kullal yi ñàkk nañ géejug joxe ñàkk nañ géejug joxe goo xam ne mboolem géej gi ci moom la ñuy yem ci ak joxe ak tab ndax eh, borom saam ku tabe woon la suñ suñ suñ borom daaru daa naan bi ba suñ Mor Jaara nelawee ndax booba ma nga fekk résidence surveillée suñ Touba Ndiarème 1921 la suñ Touba dox na ay pas ba ca pencum ma dëppaat ne mënut a dem ndax eh, résidence surveillée bi mu ne woon daa daaw dëppaat ne képp ku yoon xel ma te mën a way na ma wayal maam morom soxna Jaara moo tax moo ëpp ay marché ëppi turandoo te turandoo bu ko tuddee kër ga nga bokk référence nga fa sëñ Mbàkke Madina moom sëñ Mudu Mustafa ku ne xam na ko kër sëñ Mudu Mustafa sëñ Sam Mbay conférencier international kon ne xam na ko Maam Maamor Jaara lañ ko tuddee sëñ Mbàkke Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Maamor Jaara lañ ko tuddee ak yeneen kilifa yu bëri yoo xam ne sëñ Maam Cheikh Anta tudde na ko doom sëñ Fallu moom la tudde Maamor Jaara sëñ Maamor Sam mi ne Thiès fes yoon yu bëri lu mu liggéey moom ci la bokk mi ngi noonu kon daal moom jàmbaar la woon lool. bis boobu fa ko teg rek nga ko mën a def moo tax ñu ne ah nañ ko ci li mu wax ndax ak cant moom daa mat a fekke ginnaaw suñu borom dana la in sakartum la asidanakum ah ku sant ñu dolli la cant googu ñu bëgg bokk ci suñu moo tax ñëw sat la ko cant gi alhamdulilah waaw dégg ngeen sëñ bi mu def waaye dañuy jox kàddu bi rek euh, sëñ Maguette Ndiaye mi ak arbitre international. mu ko bàyyi woon kàddu gi dëgg la ah, la waaw dëgg la sëñ Maguette moom loolu la wax ah, mooy sëñ Maguette Ndiaye nga xamante ni mooy arbitre international nekk def wëllëre diggante mag sëñ bi ah, di jël kàddu gi rek di ko delloo sama waa bi ñu ngi lay ziar leen bu baax tey nga wax ni ci bis bi lan nga ci xam ak lan nga seet ak sëñ bi ak euh, wax dëgg yàlla mu nga naan wax dëgg yàlla ci xasaay bi am na ci am solo lool lool dañ bëggoon nga jox bàyyi jox ñu ci ay kàddu. waaw ah, kay ñu ngi lay ziar bu baax di ziare mbooleem si yi nga xam ne ñoo teew si bis bi di mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi rawatina waa àndu Mbàkke gi la ñuy jiital si ziar bi bu dee jëmmi sëñ Saliou moom moo ñu tax teew ci bis bi dañu fi teew ñoom moo leen ki gën a teew dama koy wax ne ko yow moom ay xarit nga ëpp ci ay taalibe ndax lu ko waral man ak moom ñi ngi xamante depuis 2018 te suñu xamante yàlla mu ngi boole woon ci groupe bi whatsapp yi nga xam ne ci lañ daan jàngale jàngaleem Serigne Touba waaye moo ma gën ndax lu ko waral mooy jógee na fii ci Dakar ñëw ndar ñaari yoon seet si ma ñëw ba ca daara ja yandal ma moo tax bisam bi an mu jot bu jotee dina ma ko wax waaye nag ren la suñu borom bi doo ko dogal ma teew ci moo tax it ma noonu ko nag euh, nit moom euh, lu ko nit ki jëriñoo lu nit ki di jëriñoo mooy njëriñ te kóllëre ak mbokk ay nit koy dox bu fekkee kenn ki mooy ñëw rek saa su te keneen du ñëw bu yàggee dana am lu des waaye moom moom kilifa la si ñun sëriñ la si ñun soppe la si ñun xarit la si ñun waaye teewul loolu yëpp daf ko bàyyi waaye saa su mu dagg yitteem ñëw fekk ma ca daara ja hmm. yaakaar naa ren jii rek moo ci mujj ñëw na fa. Mhm. moo tax ñu ne ñu ne tey nu ñu mën a def nañu dagg si suñu téye ñëw. Mhm. bee ñëw tamit ñu def loo xam ne lu lu lu yombut ci la si ñun mooy dañuy bind. léeg-léeg ñu toog bindantu xasida léeg-léeg ñu toog mool téere loolu yu mel noonu te dama ko waxal na ko wax naa ko moom moom su ko fekkee si benn jataay mhm. mooy tuddee doom ak tànn sëriñ tànn xarit tànn soxna ak bind ci nit waxtu woo koy def te seetoo ko donk réccu moo tax léeg-léeg nit sax proposé lu bëri si bisam pour nga bindal ko xasida arab waaye du ma ko def ndax wax loo xam ne gëmuloo wax loo xam ne amul amul benn njëriñ moo tax ñun dañuy bindee noo xam ne depuis gànnaar ba tey jii dama koy wax dama wax képp koo xam ne jog naa di wax si yow day fekk muy koo xam ne gis naa ci moom ay jikko te incha allahu taala am na yéene bu ñu demee ca baas bi tamit yaatal xasida bi fexe tamit tasaare ko ba mbokk yëpp am ci xasida moom lañ ci waxoon ci gën a gàtt rek mooy am daxu dégg nga cheikhi habibi saahibal kurama muy sëñ Saliou Mbacke loolu lañ ci moom mooy dañoo jóg ni tey tàgg nañ koo xam ne sunu sëriñ la sunu soppi la waaye borom tedd nga yu bëree bëri la dajale waaye mu mel ni ko boo xam mu ne walladi dalla bil ixlaasi kal qamari maanaam mooy koo xam ne dafay ñëw ndaw loo xam ne bu ñëw dafa tegtale yoonu lixlaas te sëriñ bi leeral na ko lu bëri bëri ci lixlaas xasida ba dem nañ ba ci biir ñi daal di wax ne Euh, duumu yaa ixwatal ixlaasi bil amali wala fil amali waaye ñu indi lan comme ñu indi si naxwal fadilati sayxil jiili dégg nga sil bashari dañ si jàmm dugloon mooy ñin ñi nga xam ne dañoo fas yéene nekk ci lixlaas pour jëf ànd ak sëriñ bi ci lixlaas moo xam lixlaasul xol bi wala lixlaasul amal wala lixlaas bi nga xam ne ñooy kuréel yi kuréel xasida yëpp nañu fas yéene jaayante maanaam góor góorgóorlu di liggéey ndax Serigne baa mbir mbiram mi ni ko sëñ bi waxee mooy lépp ko jënd. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international.